fii ci sow bi mbedd mi jàkkaarlook alaaji tali alaaji Babacar Kebe Ndiouga toog fi nag ci ndigalu fadilatu Cheikh Mouhamadoul Mountakha ngir seenu weer wi xibaar buñ ci am ñu jox ko ko mu joxe ndigal li ndigal li nag jëm ci ki nga xam ne mooy sëñ Mouhamadou Mamoun mi imam bi ak sëñ Abdou Diop ak mboolem kilifa yi nga xam ne ñoo fi nekk rawatina waa daara Muxaddamatul Xidma ki ko baaxoo nag euh, ubbil saa su nekk muy suñu mag di suñu xarit Cheikh Mamadou Fadel Silla mu ngi nii toog yegsi na kon dañ koy jox kàddu gi bu ko defee xibaar boo xam ni jóge na ci suñu kilifa yi rek àddina bi yëpp yëgandoo ko sëñ Fallou bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi bokk yi nga xamante ne bii ñoo baaxoo di bàyyi xel eh, commission bi nga xam ne mooy commission séntu weer wi bi nga xam ne mi ngi sos woon ci ndigalul Serigne Touba Cheikh Salihou Mbacké yàlla na ko fi yàlla gën a yàggal te gën a doole ak wéram mu tànnoon Serigne Mouhamadul Mamoun Bousso jiital ko ci faboon Serigne Abdou Diop mi nga xam ne mooy jiite ci jàkka ji ne ci biir këram toftal ko ci mu yore kàddu gi ñu boole ñu ak waa daayira mu xadamatul xidma ak eh, ñi nga xam ne ñoo ñuy jàppale ci lépp loo xam ne jëm na ci wàllu séntu weer wi di ku mel ne Serigne Bassirou Mbacke mu Serigne Abdoul Khoudous nekk ca Daarul Monti waaye ku mel ne Serigne Modou Mbacke si mi nga xam ne moo jiite représentant xalif Zal de Mouride yi nekk ci région yi waxtu wu ne dana jokkoo ak région yi waaye danañ jokkoo itam nag ak commission bi nga xam ne moo féete Dakar lépp loo xamante ne bi tënk nañ ko rek eh, su ñu noppee dañuy jokkoowaat ak Serigne Touba Cheikh Mahamadoul Mountakha dañuy jokkoowaat ak Serigne Touba Cheikh Mahamadoul Mountakha su ko defee nag ndigal lu fa bàyyikoo nag mooy dellusiwaat ci commission bi su ko defee boobaa Serigne Moudou Mamoun dana yëkkati kàddoom jox ko Serigne Abdou Diop mi nga xam ne mooy wax ci turu commission bi mu jottali ko ñu fàttali bokk yi tey jii la gaawu ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru baraxlu di séentu bu njëkk ci weeru koor ñu fas yéene àndandoo ak bokki jullit yi ak bokki taalibe yi eh, taataan kàddu yi nga xam ne mooy bàyyi ko ci sëriñ Abdou Diop ni mu koy defee saa yu ñu noddee dana dem ci rajo jumaa ji wax ne sëriñ bi nee nañ maase séentu weer wi te ko ci xam lu wér nga ñëw yëgle ko suñu noppee danañ ànd ak waa daayira Muxaddamatul Xidma ñëwaat ci buntu sow bi jàkkaarloog tali alaaji Babacar Kébé Ndiouga yàlla na suñu borom dolli ngërëmam ak yërmandeem su ko defee lu fi ruuse nag sëriñ Abdou Diop dana ko jottali bokki jullit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 na ko ñëpp xam loolu nag mbooloom jullit ñëpp mel na ne ànd na ci ndax waa commission Dakar bi sax yabal yable nañ fi te ña nekkal ña leen te nekkal foofu yi téléphoné nañ leen wax ne ni ñu ko gisee fii noonu lañ ko gisee foofu kon ñu xam ne kon ci ndigalal sëñ Muntaxa ci la ñuy waxee ndax buñ ko gisee ak lu leer leer ci noonu faaw danañ dañuy dañuy dañuy jokkoo moom ba ba ba joxe ndigal ci ne na am joxe ndigal gi nag jublu jubluwu ci loo xam ne day saytu ne rek man maa maa yor ndigalul weer wala yooyu waaye ci ci li ñuy séentu ak nan koy waxee ak xibaar yan koy jox ca loolu sukkandiku ba joxe ndigal ci waaye kilifa kenn du ko jiitu moom rek moo moo moo sañ a wax moo sañ a wax ne weeru feeñ na nu door cee topp kon ñu xam ne loolu am na kon noo ngi ñaan yàlla ci sëriñ jërë ji sëriñ Tuubaa weer wi wayaf lool ci nun te ànd ak xéewal ak jàmm ak sutura ak teraanga ci dara ji sëriñ Tuubaa te sëñ Muntaxa yàgg fi lool ta wér waaw ba li mu yéene ci yoon mu àggale ko ba ba sosaat leen daan ànd ko moom ci dara ji sëriñ Tuubaa wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ala Abdul Xadim Diop imam waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu kon mbokk yi ndigal laa ngi noonu muy ndigalu sunu borom subhaanahu wa taala bokk ci juróomeelu ponk lislaam yi di ñaan nag ni ko sëñ Abdou Diop waxee léegi ci ndigalu sëñ Mouhamadou bu Bousso ñu tàmbali ko ci alhamdulilahi rabil alamin ci bisimilahi rahmaani rahim jeexal ko ci alhamdulilahi rabil alamin li ci sëñ bi dagaan lépp itam yàlla defal nu ko guddi gi nga xam ni itam moo gën junne weer nekk ci biir weeru koor bi yàlla yeggale nu ci ñu dundal ko ci jàmm ba weesu ko ci jàmm naajeytu rabbiya bi chahri ramadan chahri lamaani wal muna wal fayadaan waaw waaw waaw maanaam bëccëgub ñaar fukk ak juróom benn bi lay doon di guddi ñaar fukk ak juróom ñaar jur ñaar ci nga xam ne alxames lay doon guddi ga di ajjuma kon ñu xamee ko noonu xam ne lépp laleetu xarit gi daa dëppoo moom far lépp ña ko caa def ci loola ak ñoo ñooyam benn lañ kon nag mi ngi noonu kon mi ngi noonu gëneen xéewal amaan na ci ndax xam ngeen ni guddi gu ñuy dàkk la am na nag ñoo xam ne dañoo saxal ci dàkk ka bëccëgu ñaar fukk ak juróom benn ak di guddi ñaar fukk ak juróom ñaar muy kon mu mel na kazu ramadaan yàlla dogal na ren ji itam ñun ñii nga xam ni dañu tënk woon ci lakkasun bi ñu ñun xam ni ñun ah, jullit yëpp daal mën na ni ñooy bokk ren